jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan si Sénégal 7 TV Sénégal 7 point comme ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax di ànd ak yéen saay su ne si seen couverture rawatina nag sur le terrain xam ngeen ne waxtu wi ñu ngi ànd ak yenn euh, en direct fi nga xam ni kon moom mooy euh, fii si diwaanu euh, tribunal de Dakar mbokk yi xam ngeen ne lu ñeel ba tey mbirum dossier Bougane Gueye Dany kon bi nga xam ne ndiki démb ma nga woon fa nga xam ne mooy sa diwaanu police cybercriminalité Euh, gannaaw convocation bi nga xam ni convoqué woon nañ ko foofee sa douane police cybercriminalité euh, kon tembe tembe jàppale ne euh, procureur de la république kon moo war a fi mu ne nii entendre ki nga xam ni moom mooy leader gëm sa bopp bi di Bougane Gueye Dany gannaaw bañ ko jébbale nag ni ki tey si suba gi fii si parquet bu Ndakaaru ñu fàttali leen ne nag démb moom Bougane Gueye dani Euh, dafa daal di am li nga xam ni moom mooy euh, dañ ko placé en garde à vue mu fanaan euh, loolu nag moo tax ndikki tey jii si alxemes bi ñu daal di koy jébbal ki nga xam ni kon moom mooy le procureur su ko defee nag ba tey lu ñeel wàllum audition ak entente ñu daal di xool daal fan la ñu fas yéenee jëm ak ki nga xam ni kon moom mooy Bougane Gueye Dany ñu fàttali leen na nag li ñu koy toppee bokk na si li nga xam ni kon moom mooy injure publique ak li nga xam ni moom mooy diffusion de fausses nouvelles am na si yeneen mbir yoo xam ni daal avocat yi nga xam ni kon ñoom ñooy layool ki nga xam ni moom mooy Bougane Gueye Dany daal naqarlu nañ anam gi nga xam ni kon noonee dañ koy toppee ba si nag nañ ko daal di placer en garde à ndax dégg yi nga xam ne ki nga xam ne moom mooy maître Djibi nañu ñaawlu a baax bi nga xam ne kon ba ñu ñëwee bu Ndakaaru gis nañ fi nag quelques dispositifs la bi nga xam mu ngi taxaw ak otom ngir rekk daal di euh, amal lépp loo xam ne ni daal wàllum euh, saytu li nga xam ne kon moom mooy lépp lu fi xew ak yoon mais jàppale ne euh, kon Bougane waxtu wi ñuy wax ak yéen bu ñu sukkandikoo nag si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a jege ñoom ñoo ñu xam ne daal indi nañ ko fi nga xam ne moom mooy fii si tribunal bu Ndakaaru ndax depuis ce matin lañ ko euh, dellowaat fi nga xam ne moom mooy euh, cybersécurité cybercriminalité euh, foofee nag lañ ko daal di conduiraat indi ko fi nga xam ne kon moom mooy fii si diwaanu tribunal mu Ndakaaru ko defee nag mu fas yéene jàkkaarloog ak ki nga xam ni moom mooy le procureur pour ñu préciser ne kon moom mooy am fii si tribunal nekkul ab audience publique donc li nga xam ne moom mooy ab audition bu war a dox si diggante ak moom Bougane ak ki nga xam ne kon moom mooy le procureur de la république bi nga xam ne kon moom moo ko war a daal di dégluwaat ndax Bougane démb sax biñ ko convoqué fi nga xam ne moom mooy cybersécurité cyber criminalité kon gis nañ ne lu si bëree bëri daal ñu ak ñi nga xam ne kon ñoom ñoo demoon fi nga xam ne mooy société kër góor gi ngir daal di koy accompagner ànd ak moom ah ngir gunge ko fi nga xam ne moom mooy sa police euh, cybercriminalité euh, gis nañ nag kàddu yi nga xam ne moom buggaan laataa muy dugg jotoon na koo yëkkati jëmale ko nag si li nga xam ne moom mooy si ñeel wàllum convocation bi parce que jàpp na ne lépp rek fas yéene koo préparé ba ndikki noonu tamit si la génne ab saagam boo xam ne ni euh, jàpp na ne daal même bu fekkee ne dañ koo nara a te maanaam ñu bañ ko bañ a libéré daal pare na pour tëdd li nga xam ne moom mooy kaso bi ndax saag bi daal daanaka tekke na lépp beneen bi mooy ndiki démb tamit sa cyber cybercriminalité police cybercriminalité gis nañ lu bëree bëri euh, si ñi nga xam ne kon ay leader lañ te jot nañu teew euh, ngir gunge ko waaye tamit ngir apporter seen soutien ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany gis nañu si teewaayu ki nga xam ne mooy Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall bi nga xam ne moom si ngoon gi daanaka la ñëw euh, ku si mel ni aussi Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne kon jot nañu teew foofu noonu nga xam ne kon moom mooy fële sa cybercriminalité ku si mel ni Moustapha Diakhaté donc ak Thierno Bocoum donc ñoom a teew foofu noonu ngir daal di koy mën xam ne mooy seen soutien kon fi nga xam ne moom mooy si tribunal bi ñu fi ñëwee kon gisaguñ ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jege ñaale Bougane Gueye Dany gisaguñ tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay leader naam information bi ba mu waddee ak léegi la tas la sa toftal si ay waxtu mën nañu wax ne daal bariwul dara dara waaye jàpp leen kon daal lépp loo xam ne daal euh, dina ñeel wàllum information jëmale ko ci l'affaire de Bougane Gueye Dany gannaaw convocation bi nga xam ne euh, daal lañ koy convoqué mu wuy ji ba mu wuy jee daal di koy conduire kay tey ji fi nga xam ne moom mooy sa tribunal de Dakar dinañ ko dinañ ko toppal ba xam ndax dinañ ko bàyyi mu ñibbi këram wala ak la say topp yëpp incha allah ma fàttali ne Xaamidu Sall moo nekk si caméra bi su ko defee nag euh, ñu daal di ànd ak yéen rek gunge leen si li nga xam ni kon moom mooy ba tey si couverture yi nga xam ni kon moom mooy am fii si tribunal bu Dakar ñeel wàllum l'affaire te Bougane Gueye Dany bi nga xam ne kon waxtu yi mu ngi si tribunal bu Dakar lépp lu si yees lépp lu si toptal incha allah nañ ci dë dëgtal incha allah Amidou dina affiché li nga xam ne kon moom mooy numéro internet yi nga xam ne kon ñoom dañuy bëgg di participer euh, si ne moom mooy si jotaay bi di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel si 14 régions du bi la ñu nekk ak euh, antenne boo xam ne daal ngeen interagir joxe seen xalaat joxe seen contribution li nga xam ne kon moom mooy si jotaay bi ñu ñëwaat ak yéen léegi-léegi voilà mu ngi noonu comme ni ma leen ko waxee rek di gërëmaat bu baax a baax kon ñi nga xam ne euh, tembe tembe rek ñoom ñooy seetaan Sénégal 7 TV ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax euh, bu baax a baax en tout cas duñ si li nga xam ne moom mooy euh, bàyyi xel bi euh, ak euh, teewlu bi di nuyu ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk si antenne bi xam naa si kanam tuuti ah, la ñuy ibbi antenne bi mën nañoo xaar ba si kanam comme ça ñu dikkaat si circonstances yi dikkaat si li nga xam ne kon moom moo nekk moom moo nekk li xewoon ndikki démb di nuyu bu baax a baax rek ñi nga xam ne kon ñoom ñooy ñoom ñooy seetaan Sénégal set Yaxya Diémé lañu fekk ci ligne bi euh, Maxan Keita donc euh, njaay Alla euh, Sayer ba si démocrate voilà kon liñ leen mën a fàttali rek moom mooy Bougane Gueye Dany waxtu wi mu ngi fi nga xam ne moom mooy fii si tribunal

voilà di jégalu bu baax si son bi pour revenir un peu rek si li nga xam ne moom mooy euh, l' affaire de Bougane Gueye Dany donc euh, tout à l'heure rek am na benn jege ñaale boo xam ne donc euh, c' est un proche de Bougane Gueye Dany donc tout à l'heure jot na ma informé que ne ndiki démb kon Bougane ginnaaw bañ ko placé en garde à vue mu ngi fanaan fi nga xam ne moom mooy sa euh, commissariat centrale euh, de Dakar donc kon foofu la fanaan euh, daanaka moom fa fanaanee tamit huit heures ñu daal di koy jëlee foofu yóbbuwaat ko fi nga xam ne moom mooy police cybercriminalité bi nga xam ni foofee nag lañ ko convoqué woon bañ ko fa yóbbee nag vers dix heures lañ ko jël kon indi ko fi nga xam ni moom mooy fii si douane tribunal de Dakar. ma fàttali leen ne kon waxtu wi moom ak procureur kon janaguñ gisanteeguñ waxtu wi Bougane Gueye Dany mu ngi fi nga xam ne moom mooy si kaab bi donc euh, bu ñu sukkandikoo euh, si euh, jegeñaale Bougane bi nag moo ñuy xamal que ni kon moom ak Cheikh Yérim Seck bi nga xam ne dañ ko moom tamit mu ngi fi nga xam ne mooy si tribunal kon ñoo bokk benn kaab bi nga xam ne foofu nag lañ leen dugal tembe tembe ñuy wax ak yéen kon lii mooy yeneen information yoo xam ni bëggoon nañ leen ko daal di jottaliwaat rek kon ñu fàttali leen ne euh, procureur moom moo war a dajeek ak ki nga xam ni kon moom mooy Euh, moom mooy Bougane Gueye Dany waaye kon ñoom ñaar waxtu wi bu ñu sukkandikoo si ba tey euh, jege jegeñaale Bougane yi euh, ñoom ñaar daal gisanteeguñ waaye kon Bougane moom mu ngi mu ngi si kaaf bi kaaf bi nga xam ne kon moom la ñu moom la wax ne daal foofu la nekk ndax am na si yenn information yoo xam ne tamit donc relative à sa convocation depuis hier mooy am na si mbir yu bëri yoo xam ne Bougane nangu ko woon signé gannaaw sax bañ ko tegalee li nga xam ne moom mooy ñaari PV yeeg yu ni mel donc dafa lànk bañ di ko signé ndax lañ koy toppee daal jàpp na ne loolee yëpp ay mbir yoo xam ne la amul dara loo xam ne daal Euh, jaar na sa yoon wara muy nekk loo xam ne dëgg la muy injure publique yëkkati kàddu gu ñagas yëkkati kàddu goo xam ne xëy na dañoo jàpp ne ab saaga la wala dañoo jàpp ne tamit dina blessé par rapport ak ki nga xam ne moom la koy daal di jottali beneen bi moom mooy euh, diffusion de fausses nouvelles nga daal di euh, yëkkati ay mbir yoo xam ne daal jàpp nañ ne amul dara loo xam ne lu si am la ay manipulation ak i ay mbir yoo xam ne lu siy topp la loo xam ne daal méngoowul ak li am loolu bokk na kon si li nga xam ne moom la ñuy toppee leader gëm sa bopp yi nga xam ne ñu fàttale ne mu ngi si coalition coalition euh, sàmm sa kàddu bi nga xam ni euh, kon ma fàttali leen ne euh, coalition boobu nga xam ne démb rek gis nañ taxawaayu ñeen si ay leaders yoo xam ne kon daal nañuy ñëw ngir rek daal di koy daal di koy fekk si Euh, ñoom sax daanaka sax bi bi muy départ si cité kër góor gi lañ fa tàmbalee ñëw wax naa leen ko si sama njëlbeen bi euh, gunge ko ànd ak moom def moom cortège euh, itinéraire bi topp ko ba fi nga xam ne moom mooy kon sa duwaanu police cybercriminalité kon loolu bokk na tey tamit li nga xam ne moom moo waral ñi nga xam ne kon ñoom ñoo fa teew di ay naataangoom si biir coalition ñu fàttali ne Bougane jotoon na rek daal di ànd ak ñi nga xam ne kon ñoom ñooy ses leaders ak ses alliés ngir mën a bokk si li nga xam ne moom mooy élection législative yi beneen bi tamit bi nga dikkaat moom mooy ñi nga xam ne kon ñoom ñooy waa gëm sa bopp yi nga xam ne am na ñoo xam ne jigéen nañ woon sa duwaanu Thiès jigée woon nañ euh, fii ak ay gox-goxaat yu bëree bëri ngir kon ñëw fi nga xam ne moom mooy police euh, cybercriminalité lañ doon wax ak lañ sàkk mooy nañu libérer immédiatement euh, ki nga xam ne moom mooy seen leader kii di Bougane Gueye Dany buñ ko libéré wul daal jàpp nañ ne kon fi mu ne nii daal du rek duñ daal di ñibbi ndax gis nañ coow li nga xam ne kon bëri woon na Bougane bi muy ñëw di dugg si cybercriminalité jafe-jafe ak coono yi nga xam ne amoon na ko laataa muy dugg ndax ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekkoon ci porte bi la waxoon mooy euh, seul Bougane moom mooy dugg mais finalement Bougane ak ki na si euh, ñenn ñi nga xam ne kon euh, jege nañ lool ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany am na sax ñu koy dànkaafalee ñi nga xam ne moom mooy le deuxième de Bougane Gueye Dany kon moom la jotoon àndal si li nga xam ne moom mooy si biir ñi nga xam ne kon ñoom ñoo koy assisté kon fi ne nii am na si benn élément Bougane boo xam ne nii jot nañ koo gis léegi-léegi nii tout à l'heure moom moo ñu informé que fanaanee foofu tamit ñu daal di koy conduire indi ko fi nga xam ne moom mooy sa cybercriminalité vers 8 heures mooy tribunal bu Dakar kon présentement mu ngi si cave bi en attendant le procureur de la République daal di ñëw bu ñëwee nag ñoom ñaar ñu fas yéene rek daal di gisante su ko defee boobaa dinañ xam fan la wànnante fas yéene mujjee ki ay gëtam ba xam ndax Bougane daañu ko libéré mu wala la say topp daal yàlla rek moo xam waaye jàppale ne fi mu ni moom Bougane mu ngi fi nga xam ne moom mooy fii si tribunal bu Dakar su ko defee ñu ànd seeg yéen daal di leen koy dëgtal comme nuñ ko defee defee nag ndikki euh, démb fa nga xam ne moom mooy sa euh, police cybercriminalité ak ci couverture bi nga xam ne Sénégal set ànd na seeg yéen si ko defee ñu fas yéene see dikkaat ñëwaat si circonstances ak ñëwaat si activités ak li nga xam ne amoon na ndikki démb euh, fi nga xam ne kon moom mooy si diwaanu Ndakaaru su ko defee xëy kon ñu xaarandi ñi nga xam ne kon ñoom ñooy jega ñaale bugaan yi ñu mën a rek daal di am li nga xam ne kon moom mooy euh, euh, par rapport ak seen réaction euh, ñu fas yéene si dikkaat rek jëmale ko nag kon si li nga xam ne moom mooy. voilà ñu installé wu de l'autre côté rek su ko defee ñu dikkaat ak asalaamaaleykum <laughs> ndaanaan nakam jàmm waaw voilà kon euh, comme ni man ko waxee tout à l'heure ak jëmale ko si euh, li nga xam ne moom mooy euh, Bougane Gueye Dany bi nga xam ne kon jàppale ne waxtu wi ñu ngi koy xaarandi rek su ko defee rek mu daal di ñëw fi nga xam ne le procureur de la république bi nga xam ne kon moom ko moom ñaar la ñu war a gisante ne kon jàppale ne bu ñu sukkandikoo si yile information daal moom Bougane Gueye Dany daal mu ngi si kaab euh, bi te loolu yi tamit euh, kon euh, jàppale na daal procureur dina war a gisante ak moom ñu gën see indi lu gën a leer gën see indi lu gën a yaatu ndax démb rek depuis 11 heures ñu ngi woon fi nga xam ne moom mooy sa